bonsoir à tous et déwénati ñi ngi leen di ñaanal ak fu ngeen mën a nekk di leen baal àq di leen baalu àq itam di ñaan yàlla ñu woor ko ay ati ati te itam lépp liñ ci ñaan euh, yàlla suñu borom def ko mën na ko yàlla na ko def euh, ñuy euh, déwénati ki nga xamante ni moom mooy suñu gan bi As Babacar Gaye moom mi nga xamante ni mooy secrétaire national chargé des élections ci parti réew mi ñu fàttali na nag lataa ñu koy nuyu di ko jox kàddu gi ne Idrissa Seck joxe na lettre de démission moom président Macky Sall euh, président Macky Sall daal dinay euh, nommé ci place bu Idrissa Seck ci bopp conseil économique et social kii di Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda jàllo nag euh, moom nag du gan ci kër googu ndax nekkoon na fa ci jamonoy président Mbaye Jacques Diop entre 2005 et 2007 nekkoon secretaire général bu CRAES kon moom tey jii moom dañu fal ci bopp conseil économique social et environnemental ñaari ministre am itam di Yankhoba Diattara yoroon ministère des sports démissionné nañu nu ñu ko waxee woon euh, naka noonu Ali Saleh nekkoon euh, ministre de élevage euh, waaye nag kenn tabbu fa yeneen ministre yu bees dañoo jël ñaari poste yooyu dénkandikoo ki nga xamante ni moom mooy premier ministre mu cumulé ko ak fonction premier ministre As Babacar Gueye maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau Soir d'info. jërëjëf soxna Bintu di kontaan trop ci ñëw jàkkaarloog yow. Mm-hmm. di wax déwéniti à tous les Sénégalais. di nuyu waa kër gi di nuyu aussi le président sa Seck mm. ak l'ensemble des militants et responsable de Rewmi mm. et au-delà de de ñoom di nuyu Sénégal yépp di nuyu nag fi ma fi ma jógee fi mm. cosaanoo fa muy waalo di waa ñiic donte ni maa ngi nuyu aussi waa Kounoune ak waa Touba Pikine di kontaan trop ci ñëw jàkkaarloog ak yow takk ngeen seen bagage ba pare waaw waaw takk nañu takk nañu man commandé naa samay kees suba incha allah rabbi ma yàpp samay bagages comme na ma ko defee woon coïncidence le vingt 24 le 24 mai bu euh, Omar Gueye le 24 mai 2013 ci même circonstance yi ba ñu waxee muut mbaa mot te ña fa nekkoon ñoom toog muy ñaar ñi sa jëloon mhm. toog ñoom préféré ànd ak Macky Sall c'était un 24 comme tey nu mu nekkee 24 mhm. man dama jëloon samay bagages dem dellu ci la ma xam muy jàngale ji ànd ak président Idrissa Seck comme sama leader dem jàngale ji sama métier pendant sept ans. Mhm. donc tey jii xam nga ni lii daf may yomb lool. pour que véritablement ma defaraat samay bagages le 24. incha a bi suba. mais moo ci li ma nekk. au au côté du président Idrissa Seck. est-ce que démission bi ak euh, situation bi nu mu accéléré si euh, ñaari ci fan yi euh, lu leen bett la woon. xaaral ngeen egsi fii ak Macky Sall. déedéet ndax bett nañu ni. Mhm. lii dina mas a am président Idrissa Seck delluwaat ci li mu nekkoon mosuñoo bett mais kooku tamit bépp sénégalais boo xam le président Idrissa Seck xam jaar-jaaram nekk l'homme politique le plus expérimenté je pèse bien mes mots en matière de participation électorale présidentielle def ñetti présidentielle ñaari mu dugg ci sénégalais yi jël deuxième ñetteel bi benn bi ñaari benn bi mu toog deful campagne par rapport à des principes jël cinquième muy trois candidatures kooku ñàkk bañ a bokk ci élection moo war a jaaxal sénégalais yi mais le train qui arrive à l'heure n'intéresse personne c'est pourquoi bi muy wax ak président Macky Sall di dugg parce que pour l'intérêt supérieur de la de, de, du pays dafa waroon dugg président Macky wax na ko démb wax wuñu affaire vraiment euh, 2024 euh, parce que wax na ko ni ko boo fa eggee li nga bëgg a def da nga koy def mm. te président Idriss Seck aussi bi mu ciy dugg leer nañu ñun ñii que pour rien au monde véritablement du ay élection di ñëw du am Sénégal mu ànd ak wér ànd ak léppam nda sagoom vraiment te du ci bokk mm-hmm. lu ko Sénégal yi jox mu jël donc loolu vraiment ñun bettu ñu moo tax mm-hmm. man mii nga xam ne maa yor les élections mm-hmm. mais bàyyiwuma sama bopp parce que li mu ñu jàngal ñun ci politique mooy chaque fois que mu dénk la dara liggéeyal comme nous devons toujours aller seul moo tax heure bi may waxee nii nous sommes dans la période de la révision des listes électorales je peux vous affirmer que dans les 41 pays dans lesquels dans la diaspora li may wax ci télé la ñu ngi fay def révision euh, des listes électorales nous sommes dans 37 pays nos représentants sont déjà sur place comme aussi dans les commissions yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di waajal suñu bopp parce que même dans le cadre d'une coalition globale li ñu fa wax te ñu ko doon jëfe mooy euh, renforcer nos partis politiques yu bokk ci biir parce que la force de tous les de tous les partis politiques boo ko boolee moo doon jox la force de l'ensemble donc mos dara bettuñ ci loolu sur le plan de la préparation nous sommes vraiment au top. alors euh, euh, yéen tey jii lu tax ngeen gaawantu rek takk seen i kaaka daal di euh, ndax Idriss Seck balaa Macky di wax démb ci RFM moom nee na bàyyi na dina de joxe lettre de démission am naka noonu ay ministre am xanaa da ngeen jàpp ne Macky day dem troisième mandat. non non loolu loolu dama lay wax li président Idriss Seck wax rek gis nga balaa ngay toj gémmiñu sàmm nag xaaral ba mu ba mu wëlis comme wëlisagul ñun loolu mënuñu cee wax li ci am solo daal mooy. le président Idriss Seck a un can a un calendrier d'hommes politiques matures war a bokk am offre bu mu war a def le Sénégal les Sénégalais xalaat ni bien que le président Macky Sall wax na ko dans sa lettre de de démission jàpp na ni sa vision maintenant dafa dépasser jam euh, euh, ñaajo te loolu man ma xam ci dara man mi nekk waalo li ma koy wax rek mooy ba muy cité ci lettre bi Jolof ak euh, ak nu mu tëddee Sine Saalum ak yow war na ci def waalo parce que man falaa xam <laughs> ñu xam ni dépassé na loolu mais mu jàpp na ni moom war na mën a def lu ëpp loolu parce que tout œuvre humaine vraiment n'est pas parfaite parce que bu jàppoo ni mënul def lu ëpp loolu te xam na ni mu ngi liggéey liggéey bu am solo di tam ci wetam mais jàpp na ni mën na indi lu ëpp loolu mais mu defar ay bagages am préparé parce que en fait nous sommes à neuf mois des élections li ma la wax rek comme nag ñu ngi doon préparé wu en conséquence par rapport à ça et c'est ça notre philosophie voilà ñu def ko mais du problème mu yàkkamti du leneen amul benn affaire bu am ci diggante ci lu laal deal ni à l'entrée ni à la sortie parce que en vérité su fekkonte ni deal am na je vais vous dire que quand les deux se parlaient le président Macky Sall en tant que républicain souhaitait que le frère Ali Saleh reste dans le gouvernement nous sommes à quelques deux mois des des de de de de de l'opération Tabaski mu nga xam ne mooy activité phare ministère bi mu def fa liggéey bu mucc ayib le président lui a demandé bu doon sama sago nga bàyyi Ali bu liggéey liggéey boobu mais euh, Binta bu dil amoon foofu mhm. dil boobu dañ ci boole Ali utal ko lay Mais quand le président Idriss Seck a donné la parole à Ali, Ali a dit, contrairement à ce que les gens fait en 2012, mhm. président Idriss Seck yaa ma ci dugal boo génne notre mhm. frère. le fils à Idrissa Yankoba wax la même chose man satisfaction boobu sax laa gën a am ci mbir mi. Mhm. parce que Idrissa a toujours vraiment eu des coups. am ci nit ay confiance ñu def ko coup mais quand ces gens là ont dit ça le président lui a Ali tu peux rester dans le gouvernement c'est mais je pense très bien que loolu rek mun na nekk benn signal bu fort pour xam ne si deal avait ci loolu ñu utal ko lay ba à li nekk foofu. lu yàqu ba nekk euh, yow euh, nee nga deal amul. mais sénégalais yëpp dañoo jàpp ne euh, moom ak président Macky Sall dañoo nekk ci raay mbënde bu kii waxee lu baax moroom moom kee xëy waxal ko leneen lu gën a baax te ku ne xam ne Idi ay jamono waxoon na ne euh, la vision du président s'arrête jam Diamniadio mu dem ba ci biir ne moom jàpp na ne weesu na ko est-ce que yéen waa parti réew mi ak Idrissa Seck ma ko jiite am ngeen respect ci ci ci Sénégalais yi parce que toog ba mu neex leen ngeen dem ànd ak Macky Sall ba mu naqari leen ngeen génnaat naan kat euh, lu mu wax lu mu liggéey bilan bi matériel baax na bilan immatériel su ma ñëwee naa ko defaraat euh, ci lan ngeen di sukkandiku tey jii pour wax ak askan bi ba ñu dégluwaat que askan bi. li ñu leen wax ci ay faits boo liree lettre président man ma wax la man mii depuis 2014 maa ngi fréquenté la commune de Niitch dans le Waalo nekk fa nag un opposant du maire qui est au pouvoir pour sama gox développé wu mais quand je te dis Binta que dans cette commune là quand j'ai commencé à fréquenter ndax foofu la juddoo di ko benn groupe électrogène moo nekkoon ci le village centre muy Niitch ñu ciy def carburant muy alimenter le village les soixante dix autres villages nekk dans l'obscurité benn village nga daan compter bu am benn robinet mais quand bu fekkee mënuma mënuma comme mënuma ma gis ni actuellement courant bi dugg na ci des na nag dugg na ci village yu baree bare bare ma gis ni ndox mi dugg na ci village yu baree bare bare ma gis tali bi may jël di aw kër Momar Sarr di fa dem na mu meloon ak ñu koy defar mu dem foofu mais nag damay accepter ni véritablement cette vision là dépassé na jam ñaajo mais wax loolu aussi jarul Sénégalais yi boo ko waxee boo ko waxul lii ma wax nii tout bokk de Sénégalais dans toutes les localité du Sénégal am nañu ay exemples yu wóor par rapport à sa moi je pense que loolu ci jullite la bokk ci wax dëgg la bokk mais ku wax bi ma ko waxee ba pare dafa gëm ni. bu ko dépassé tamit ak lépp lu mu mën a réussir moom président Idrissa Seck bis bu jëloon réew mi dina ko yóbbu fa ëpp loolu. et c' est pas la première fois combien de fois le président Abdoulaye vraiment ñu koy ñaanal wér ak wérle mu yàgg fi loolu te wér. combien de fois le président Idrissa Seck euh, le président Abdoulaye Wade dugg na dugal loxoom ci liy liggéey Sénégal. génnaat n'est-ce pas tàllal loxo Sénégal yi jox li ñu koy war a jox. je pense que noonu la ko war a gisee mais à la mais deal boobu am na amul euh, l' avenir et le meilleur juge. bu leen euh, mais jëlee lëkkale Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck je pense que euh, du lu ñu lëkkale lu ñu war a lëkkale parce que Abdoulaye Wade. quoi qu'on puisse dire il a aimé Sénégal dafa daw. yéeg euh, dem kaso euh, ñu door ko fii mais Idrissa Seck ñëpp jàpp nañ ne et puis euh, même les huit conseils du des douze qui compose le bureau du CES l'ont dit c'est quelqu'un qui ne travaille pas il est toujours dans la manipulation il est toujours wax ju neex tari alxuraan mais à l'heure du bilan liggéeyam liggéey liggéey kenn xamu ko ci tu me donnes l'occasion de parler de ça c'est très important de ces huit conseillers là véritablement yi nga xam ni ñàkk xam-xam baaxul ci dara bu ñàkk liggéey amee ci ñooñu la ñooñu bu ñu xamoon ni ces huit conseillers là que benn décret président de la république moo fixé la session 7 mars ba 28 avril moo ko fixé beneen décret président de la république mhm. moo stabilisé le règlement intérieur du CESE qui dans son article 5 dit que le bureau qui est composé juróom benni vice-président ak juróom benni secrétaire ak le ak le président mhm. ñoom véritablement ñoo war a doxal xool avis yi yi nga xam ni préparer la session la bu ñu xamoon loolu xam ni bu ñu opposé woo ci loolu mu bañ a am ils n'ont pas défié le président Idrissa Seck ils ont défié la République le président Macky Sall c'est une défiance de la République ci mm. est-ce que xam nga Binta bu ñu xamoon sax seen wareef ñu naan Idrissa liggéeyul lii lay def et cetera su ñu xamoon seen bopp est-ce que tu sais que bureau de douze là six rek six six bu ñu lëkkaloo bind le président du CES e dañ koy convoquer en réunion par force day ñëw te bu ñëwee war nañ ko mën a wax seen doléance yépp ba pare yóbbu ko euh, ca ca ca plénière ba il faut que les ñu wax les sénégalais pourquoi en deux ans et demi si li ñuy wax bu doon dëgg la pourquoi ils n'ont pas utilisé cette procédure la pour mettre dos au mur le président mais fi may attirer attention sénégalais yi et dafa doy waar si huit personnes qui bloquent une institution tey jii mën naa neex waaye aujourd'hui le le président Daouda Diallo moom la ñu fal. ñu ngi koy ñaanal pour le bien des Sénégalais mu réussir sa mission. peut-être que am na benn Samba wala benn benn Demba Diop boo xalaatoon jël poste bi te joxuñu ko ko gis kooku bu amee une majorité là-bas bu amee dans ce bureau là une majorité boo ko neexee suba mu bloqué Abdoulaye Daouda Diallo. Mm. est-ce que on peut prendre ces institutions la à la légère. di leen mettre à la disposition de des citoyens lambda fu ñu bëggee bloquer bloquer fu ñu bëggee loolu aussi leçon pour l'avenir ñu liñ ci jàpp mooy cas d'école bi war na tax ñu gën a xoolaat le règlement intérieur ba ku mën a jóg rek doo mën a bloquer cette institution là mais li ñuy wax noonu li ma wax bu fekkoonte ne mën na nekk ñu ngi ak Idriss les méthodes ne sont pas ñoom ñi fi nekkoon dañ leen laamisoog ñoom di jaxasoog ñoom lu nekk mais président Idriss Seck pour quelqu'un qui le connaît même nous qui sommes très proches de lui mais on accepte moi qui qui est son chef de cabinet je peux rester un mois sans le voir mais amul benn liggéey buy tardé parce que foofu la jamono bi toll mais bu fekkee da nga bëgg nag parce que ma bëgg ko def xarit bëgg ko def dëkkandoo mais Idrissa c'est pas cet homme-là hmm. mais xam naa ni bu buñ ci eggoon hmm. ce que nous avons réussi dans cette dans cette institution là en deux ans et demi amul kenn ku ko mos a ba ci bureau bi mënuñu ko gis euh, il s'absente toujours nee nañu mu ngi ci fermam bi souvent du ñëw conseil économique social et environnemental euh, les élus duñ ko gis euh, bu ñu waree liggéey du ñëw nga bëgg a wax ni moom c'est c'est c'est ça sa sa façon de faire léegi liggéey léegi c'est quoi cette façon de faire liggéey léegi c'est pas le contact direct xam nga tamit nit ki nga xam ne yàlla def na ni nit ki nga xam ni nit ki nga xam nit ki nga xam ni yàlla def na ni internet bii nga xam moo tax ñuy lëkkaloo yaa ko indi fii ci Sénégal donc qui te dit la fois qui te dit qui te la fois passée qui te la fois passée que même suñ ma tëjee biir Sénégal ma liggéey ci sama liggéey bi may liggéey en Chine ailleurs foofu la réew mi toll ñoom c'est parce que jisuñu la personne physique de Idrissa te c'était pas dans le contrat li ci amoon solo mooy. depuis deux ans et demi depuis deux ans et demi le Binta on a fait cinq sessions chaque année il y a deux sessions on a respecté les cinq sessions mhm. normalement bi le 28 lañu ko waroon tëj def nañu neuf thèmes adressé nañu neuf thèmes yi nga xam ne dans des domaines vraiment de façon prospective gisoo euh, affaire accident yi euh, et cetera modernisation du secteur dañ ko def avant l'érosion côtière euh, les inondations l'employabilité des jeunes etc on a fait neuf thèmes on a fait des dizaines d'avis yi nga xam ne teg nañ ko ci loxo président Macky Sall te malheureusement ñiy attaqué bu ñu doon xool les avis la production du CES topp ko ci les politiques publiques surtout ci PAP 2A bi wala ci xëyu ndaw yi dañuy gis ni une bonne partie de ces avis là qui sortent de ce laboratoire là sont pris en compte dans le dans le développement de ce pays-là mais duñu ko gis. mais est-ce que ces aménagements sont pris en compte vous pensez que si le président Idriss Seck dafa toogoon foofu di fa nelaw pendant deux ans et demi. Ah, président Macky Sall dina ko fa bàyyi. c'est le résultat qui ah, compte. am quand je te dis que j'ai regardé le courrier en me préparant pour ñëw je vous dis Sénégalais en ont déposé des correspondances au niveau au niveau du du du CES. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque mois il y a cent Sénégalais qui pensent que CES am na njëriñ ñu indi fa seeni soxla. Mhm. cent boo ko jël cela veut dire que chaque jour il y a trois Sénégalais yu ñëw foofu. Mhm. te li ci am solo aussi et les Sénégalais peuvent nous témoigner de ça niñ daan dugalee courrier te dootu génn je te dis mu presque tous les courriers sont traités et les citoyens ont reçu de leur réponse te. engouement boobu Sénégalais yi am dafa gën a dem on a fait les trois mois là yi ñu commencé rek pour essayer de voir préparer suñu bagage pour préparer suñu bagage mhm. il y a six cent dix-sept Sénégalais mhm. déjà yi nga xam ni am nañu ay soxla sur vraiment euh, déposer ko soxla yi nag du ay soxla individuel rek parce que am na social mais ci am na ci ñi nga xam ne dañuy jànkonteeg ay problème ci seen liggéey seen société am problème ay difficultés c'est-à-dire que le président Idrissa Seck a beaucoup nga mbuur mbuur kat dafa xew mhm. des Sénégalais qui des difficultés mu ñëw comme dafay am def ko point d'attention waxtaan ak son ak le président de la République ñoo ñu gis ci seen saafara donc le conseil économique social bien que si les gens yi koy attaqué doon nañu gëstu loolu am na am na lenn aussi lu ñu koy wax que c'est un c'est une institution budgétivore dañu noose moi qui vous parle je suis son chef de cabinet conseil spécial mais les moyens du CES ak na muy doxale quand je te dis j'ai même pas de véhicule de fonction en tant que chef de cabinet amul benn chef de cabinet ministre Sénégal bu amul loolu yaakaar nga du bambu laa amoon foofu yëf dem kon man mii dinaa taxaw foofu en tout a casé tous les tous les gens de réew mi au niveau du CES kooku ñëpp xam nañ ay ñoom Awa Gueye Kébé yi nga xam ne kenn gisatu leen woon ñoom ñëpp ña foofu ci ci ci ah, CES ñu àndoon ak moom bàyyi ko sax da leen a bu doon bambu li ma la kaabu xam nga Sénégal dina leen jaxal non cest dire que président moo ne woon bu kenn jëndati oto ah, am am nga prime de transport am nga prime prime de prime. mais am de prime transport. am man jàng man gëm. yii nii ñuy def. ku la jox liggéey dina am lu ma la def mais moi je suis un professeur de classe exceptionnelle je suis mhm. consultant damaa gëm ni politique bi ñëw ñu ci pour ay privilège bu ñu ci ñëwoon pour privilège constance bi ñu am ànd ak a bu mu génnee ci euh, bu mu commencé junj damay dem du ma dem daa mujj gi mën a dégg damay dem est-ce yéen ngi lire les commentaires des Sénégalais est-ce que xam ngeen ne Sénégalais yi génn nañu ci yéen ba set wecc man du lu ma inventé mais xëy na xëy na yéen a ngi lire yéen a ngi dégg les est-ce que yaa ngi xam Sénégal yi Babacar est-ce que dégg ngeen Sénégalais yi. le ah, feedback après ça vous l'avez entendu bi président Idriss Seck defee li mu def. Hmm. aujourd'hui pour l'intérêt vital du Sénégal les Sénégalais ont applaudi des deux mains xam nga lu tax nag. Hmm. parce que li dëkk bi laaj nii. Hmm. ak courage politique bi mu am nii. yomboon na ko lool mu continuer de layam layam yi. lii muy def pour te yàgg naa ko wax avant même moom muy wax. j'ai toujours pris la responsabilité de dire le président Idriss Seck. bu demee bay jël. décision du jël mukk ab décision bi xam ni am na ci xel ñaar ñi mën naa taal réew mi mm. il toujours du côté du peuple waxuma ni ñee dañuy def et cetera waxaguñu ci ñoom mm. mais bu gisee ni aujourd'hui euh, moom d'accord ci troisième mandat mm. moom Idrissa te xam ne troisième mandat lay taal dëkk bi te dëkk bi il aspire à téye ko ci loxoom te bëgg ko fekk mu nekk dóom décision la bi mu jël qui est une décision très sage très sage je pense c'est une décision qui est saluée par les Sénégalais te la nekk ca kanam nag li muy wax rek il le fait pour le Sénégal que le Sénégal puisse lui donner pour qu'importe ce qu'il est en train de faire là il ne le fait pas pour lui-même il le fait pour le Sénégal la ca kam nag du ñu def météo politique la ñu yàlla jox te li ñuy def duñ dañ ko jox ak xam parce que ce n'est pas une candidature de plus c'est un homme expérimenté qui je le sais doona li mu def sur le plan communicationnel ba ñu egsi fii Sur le plan de la pratique aussi, on va le faire. Et au soir du février, on verra. J'en profite pour dire que am na ñi nga xam ne ñu ngi commencé vraiment di nax seen bopp. Hmm. Je vois des commentaires des gens qui pensent que la génération de Idrissa Seck, de Macky c'est des soleils couchants et que les jeunes qui sont là, c'est des soleils levants, ñu ngi nax seen bopp. Hmm. ñu ngi ñu ngi nax bopp a parce que ñooñu di di ko wax tey jii. Ah. ñooñu di ko wax du du du ay fo. élection du ay fo. ce rendez-vous-là avec euh, des personnes qui ont des projets par du ay fo. et ça je te le dis ici peut-être dinaa fi ñëwaat. au lieu d'être ay français yu neex ak yu mel noonu. c'est tout un processus nee naa la ñun nous sommes dans le processus. et nous sommes très aguerris. moi qui vous parle. depuis 2016 tout ce que l'opposition a fait sur le plan électoral man sama jëmm ji xeebu ji que ce soit le oui ou non que ce soit maa ko taxaw Sénégal que ce soit idi man mi maa ko piloté te ñu mel ni ñun bëri na fa te li ñuy def dañ koo xam nag duñu wax ne élection suñu yëf la mais on va jouer notre part waaw euh, d'accord il faut ngeen am une bonne stratégie boo xamante ne de reconquête ah du cœur des Sénégalais loolu moom liggéey bu méttee méttee mu ngi leen di xaar ci côté boobu euh, <laughs> man daal maa ngi fi di déglu Sénégalais di lire di leen déglu aussi am na solo euh, bu leen nax seen bopp tamit yéen waa waa réew mi te yi tamit euh, am na leneen l'histoire nous juge l'histoire nous jugera moom laa wax moo tax man le temps est le meilleur le temps est le meilleur juge et puis fan la Idrissa sa teg nii dem ànd ak Macky Sall ba mu neex ko mu génn ne moom daal moom mooy le chef de l'opposition parce que vraiment bu dul moom du keneen alors que nature a horreur du vide ba mu demee ànd ak Macky Sall gis na ay xale yu ndaw ñoo toog seen place Ousmane Sonko pour ne pas le nommer gis nga xale yi nuñ ko toppee donc moom fees na place am dell assemblée nationale gis nga la fa nekk sénégalais yi ont décidé euh, jox ñi 80 euh, jox ñi 81 fan la fan la fan la wéer boppam ba naan moom <laughs> moom daal moom mooy chef de mooy fi nga xam ne tey jii damay jàpp ni aujourd'hui ñu bëgg ko ak ñu bañ ko mhm. maître Madické Niang est la cinquième personnalité du Sénégal mhm. xam nga lu tax hmm. élection 2019 ba ñu demee jàkkaarloog sénégalais yi yaa ngi dégg mhm. sénégalais yi dañu Macky Sall mooy président jox ko ni Idrissa Seck yow mii. ñu doy ba ñuy defaat élection yaay topp ci Macky Sall. Mhm. wax notre le, le le jeune frère euh, avec qui a beaucoup de mérite. Euh, Sonko ni ko yaay troisième Issa Sall yaay quatrième kii mooy cinquième. lu tax luy ndey ñu mën a accepter. ni président de la République. Mm. il est président parce qu'il a eu cinquante huit pour cent. Mhm. et que celui qui avait pour cent. Mhm. n'est pas deuxième je vais vous dire. gis nga ñi doon bañ ël daaw rek ñooy bañaat ren. moi j'étais le un des représentants du dialogue politique. dans l'opposition est-ce que vous savez Binta que quand il s'est agi de désigner de façon formelle le chef de l'opposition il n'y a que des opposants qui s'étaient opposés à ah, ça pour dire que Idriss Seck ne peut pas être ñooñu waxoon loolu tey jii ba Idriss yóbbaale yëfam dem wuyu appelu premier président Macky Sall ñu ne comme deuxième bi nekk fi <laughs> yow troisième bi yow yaay chef de l'opposition ay caaxaan la loolu mooy dëgg as Babacar opposition chef de l'opposition ay suffrage moo koy jox. man tey ji bu ñu demee élection bii di ñëw si le président Idrissa Seck ne gagne pas les élections position beneen bu mu jël place boobu la am su ma nee chef de l'opposition ma ne ko tu n'es pas le chef mhm. a xam maintenant. Euh, ku ci nekk ak ñu ngay doxalee. Mhm. chaise bi ce n'est pas parce que Idrissa daf ci jógee dem rek. Mhm. que kenn dafay toog kenn sañu faa ah, toog. ku fa toog ñu ngi jógal ku ci nekk président Ousmane Sonko nag toog na ci chaise am. di liggéey liggéey bi muy liggéey. mais il très bien. qu'il est le troisième et qu'il dernier le président Idrissa Seck. aussi vraiment c'est les faits yomb na de. non c'est les faits. yomb na de fee la. Mm. fan nga mën a jaar. ba mag euh, ma di. nekk seen ci personnalité ba mu neex la nga ñëwaat toog sa place. non du du ba mu mm. boobu parce que lii la ko jox. Mm. ay suffrage yu koy jënd. ku ko bëgg. loolu 2019 la bu ñu demee léegi léegi léegi ci bu ñu fa demee ku bëgg place boobu jënd ko. noo koy jëndee wax ak sénégalais yi. lijjanti ko. ba véritablement bu ñuy voté ñu ne yaay deuxième. Mhm. mais tant que loolu amul vraiment loolu nañ ko teg fële. Mhm. le président Idrissa Seck est bel et bien mhm. le chef de l' comme le président de la République. le gardien de la di déglu dama leen di eh déglu. <laughs> dañuy wax Sénégal yi ngay ak yi déglu du ñu benn. <laughs> waaw waaw parce que fii nga ne man gannaaw suba maa dellu gannaaw suba maa dellu. c'est normal mais dañuy wax que ne vraiment il a raté euh, le le le le cap de de 2007 ba mu ba ñu jógee ci 2007 ba léegi lu ne def na ko mais mënatul dugg ci jooy na def na lu nekk wax na lu lu nekk mais mënatul dugg ci xolu sénégalais yi fu mu toll nii seen benn stratégie ngeen defaat pour duggaat ci xolu sénégalais déjà ki ngay wax ni depuis 2007 dugg ci xolu sénégalais euh. moo classé deuxième en 2010. mais du moom kese. ah c'est une forte coalition d'anciens premiers ministres. mais nag quelle que soit quelle la coalition. déterminant du leader. les Sénégalais les Sénégalais yi doon dem di voter xam na ñun suñu frère day gàkku léewut ñun ñu baax ma je les salue au passage. waaye nag. Mm. waaye nag ki taxoon ñuy wote nag. Mm. ki taxoon ñuy wote. Mm. wax dëgg yàlla mooy kii indi programme am. nag n'est-ce pas. ñu am yaakaar ci moom pour mu yor dëkk. léegi ba c'est ça la réalité réew mi ngeen demee élection kon. non non amul benn parti politique. Ah, quel que soit noo mën a toll. bu xalaat mën a. def ay élection ba sonn benn faalewu leen léegi nag. ban euh, ban coalition moo ngeen di demee. <laughs> la ñuy demee. <laughs> du fii lañ koy waxee. mais c'est sûr que <laughs> tey jii avec la réalité politique du Sénégal euh, mm-hmm. Binta. Mm-hmm. amul benn parti politique. Mm-hmm. bu mën a dem élection. absolument mën a jël dara. et je sais que stratégiquement on va se préparer. et les jour à venir vous nan la ñuy demee ci élection yi mais nous sommes très confiants par rapport à ça moi je suis très à l'aise et très confiant mais pourquoi peut-être dama am lu ma xam te xamoo ko. xam naa Idy dina waaw waaw parce que yow yaa tu es dans le secret des des des ba mënuma wax loo xamante ne xaw ma ko aussi mais dañu jàpp ne Idrissa Seck tamit dafa bëgg ay jeux de par exemple euh, dem seeti euh, kii 5 heures du matin <laughs> yor moto dem seeti Ousmane Sonko bi nga xamante ni euh, moom ak Macky Sall même si wax na ne yëgal na ko ko mais daal ay jeux de yo-yo Idrissa Seck. je vais moo moo bari. nañu ñëw ci fay rek. Mhm. xam nga ni président Ousmane Sonko ko am fayda de. Mhm. ku teewul ku ku ku ku njamee muy wax la. Mhm. jàppoo ni le président Idrissa Seck jël na ab moto. Mhm. dem seeti ko ñu julli fajar. ñu paree génn. Mhm. coïncidence am ndax euh, nag euh, tombé moo waral ay gaaf mu waroon am lu mu def moom luy yëngal dëkk bi moom mu teg ko ci suuf. président Idrissa am lu mu waroon dox mu teg ko ci suuf. yaakaar nga ni loolu du jàmm du jàmm ju set wicc. et que le président Ousmane Sonko ne peut pas dans un deal. avec le président Idrissa Seck c'est très clair comme li ma waxoon sànq le président Idrissa Seck ne peut pas être en deal avec le président Macky mais le fait que moom mu mën a def un trait d'union un trait d'union que du n'importe qui tey ji moo mën a taal moto dem fële cité góor gi di julleeg fajar sa waay ne serait-ce que ce facteur stabilisant bi nga xam ne am na ko dem waxtaan am possibilité waxtaan ak ñu nekk ci opposition bi parce que ñu nekk ci opposition bi ñu la ñu ci bëri nag ay ay ay euh, seen patron la woon mm-hmm. te ñu am respect moom Mm-hmm. ne serait-ce que ça pour jouer pour la stabilité de ce pays mais lan la teg si loxo lan la teg si loxo Sonko ba Sonko war a dellu ginnaaw lan la war a teg li mu ñu wax rek mooy li mu ñu moom mm. du yéen laa koy wax du kenn laa koy wax mm. mais man en tant que scientifique ba Sonko delluwaat ginnaaw en si li ma gis rek mooy lu factuel mm. xam naa ne daal dem boobu ca fajar gi jàmm rek lu jur pour mhm. Sénégal te ñun nag Sénégal rek moo ñu ñor mm. c'est tout. waaye Sénégal sax moom war nañoo tàmb yéen politiciens yi si <laughs> seen seen ay calcul ak yooyu waaye lu may jeexale mooy euh, Idi tamit gis nañ ko bu mu defee sa première conférence de presse mu dal si kaw euh, Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo waral coow li li mu am tey yàlla ak moom euh, Abdoulaye wàdd la mu dal ci kawam di dal aussi si sénégalais yi naan leen vraiment yéen vous n'êtes pas digne de foi vous n'êtes pas digne de confiance ay du ngeen wax dëgg day dem sax bay si tegg ay ay fenkat ngeen ay menteur ngeen fan la teg fan la teg yi yow ñetti mbir waaw voilà discours mu def keroog am na ñetti mbir yi nga xam ni ñu ngi koy wax et tu me donnes l'occasion d'y revenir pour leeral ko. Mhm. bu njëkk bi mooy. président Abdoulaye Wade lu gaaw président ah. Abdoulaye Wade na mu waxee contexte rek moo tax mu waxee noonu. Ah boo seetloo deuxième discours am bi mu def keroog. Mhm. exemple yi mu jël ci président Abdoulaye Wade yëpp gis nga ko ay exemple yu am solo. travailler parce que dafa dëgg réaction yi non non non contexte président c'est quelqu'un qui xam il est à cheval. sur le sur sur le livre. moo tax ay waxam. Mhm. boo ko toppul te jàngoo. Mhm. da ngay indi problème loolu rek moo ko waral mais y a maintenant mhm. euh, bu ñu yàq wax ci yow léegi nga ne waaw ah, wax nga léegi yéen politiciens yi mhm. yéen politiciens Sénégal affaire te xam naa ne bi ngay wax les politiciens du ñëpp nga def dans le même sac c'est la même chose ñun Sénégal yi daal yéen Sénégal loolu rek mais je pense qu'il parle à une catégorie de Sénégalais qui existe nag yi nga xam ne duñu respecter seen ay ah, paroles duñu respecter seen parole duñu respecter seen engagement mais c'est pas généralisé <laughs> As Babacar Gueye secrétaire national chargé des élections ci parti réew mi moo nekkoon suñu gan euh, gërëm ko bu baax a baax gërëm leen yéen itam mi nekkoon dina doon ñu seetaan euh, dañuy dem publicité euh, gannaaw publicité yi sama rakk ju baax ji Mamadou Mohamed Ndiaye dina fi teew Ndiaye jaata Ndiaye pour le journal